Touba 2022 seen télévision régionale Thiès Prestige ànd ci nag yéen rek ah, ci euh, lépp li nga xam ne dafa ñeel wàllu euh, màggal gi rek jamono ji may wax ak yéen nag ñu waaj a dugg fi nga xam ne rek moom moo di ah, daaray euh, xam ne moom moo di bibliothèque Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul foofu nag nga xam ne rek fa la mbindu sëñ bi nekk askan wi yëpp di fa ñëw moom moo di mbind ba moom mi nga xam ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nee ndaw yi bu fekkee da ragal gàcce fexe leen rek ba daal di jiite li nga xam ne moom moo di xam-xam ndaxte rek bokk na ci li nga xam ne moom moo leen musal ci euh, lu bëri ci noonu nag la ñuy def rek daal di ànd ak yéen euh, dugg ci biir daal di xool li nga xam ne rek moom mooy euh, nettalib daaral daaray Kamil bibliothèque bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ànd ceeg Moussa Mbaye ci caméra bi. na murid yu bëri yi nekk ay murid fii lañ xamee Sëñ Tuubaa fii lañ nekk ay murid ndax bu ñëwee ci barab bi di gëstu dañuy yëg ne Sëñ Tuubaa li mu bind moom amul lenn luñ ci mën a def loolu jëriñoo ko kon bari na tey taalibe yu bari yoo xamante nekkuñu woon ay murid wala nekkuñu woon sax ay julit ci barab bi daare kaamil fañ nekkee julit fañ nekkee ay murid nga xamante ne ndax téere fi nekk yu bëri arab la waaye nag def nañ ci ay effort Sëñ Abdu Lahat def nañ ci effort yu rëy ndax xam ne woon na jamono yooyu taalibe Sëñ Tuubaa ñu ci ëpp France lañ jàng mu taari di leen traduire en français Masaalikul Jinaan traduire en français jëm ci wàllum téere xam-xam yi jëm ci wàllum naxu wala jëm ci wàllum euh, fiqh droit musulman soufisme grammaire xeetu xam-xam yooyu yëpp Sëñ Abdu Lahat mi ngi fiy teg mi ngi ko fi indi kon euh, Sëñ Abdu Lahat maanaam waxoon na Sëñ Sàmba yi mu taari euh, Masaalikul Jinaan Masaalikul Jinaan bi nga xamante tey bëri nañu xam Serigne Touba ci Masaalikul Jinaan ci lañ ko xamee traduit ko tasawu si xaar jawru nafis xeetu xam-xam yi yëpp mu traduit ko en français pour mbokk yi mën a xam dëgg-dëgg Serigne Touba mais loolu ci xasida yi xasida yi bëri mu def ko ay traduction en français ginnaaw loolu nag dolli war na ci ay traduction ci anglais ci italien ci allemand ci japonais xeetu langue yooyu yëpp def nañ ko ci ay traduction yoo xamante ni ñu ngi ci daal di kon daare kaamil eh, barab bibliothèque la comme bu ñu waxee daare kaamil ñu bari ñu yaakaar daare kaamil barabu maanaam eh, ay alxuraan kese kese moo fa nekk waaye daa am ñaari daare kaamil boo demee ci jumaa ji am na barab boo xam ne foo la daare kaamil fa lañ koy jàngee foofu la mbokk taalibe Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasuul daare kaamil ba nekk ko Jurbel nga xamante ne vingt huit personnes yooyu ñoom am na ñoo xamante ñu ngi fii ci Touba nañ ko jàngee Njaaréem di ko jàngee eh, Darou Moussi di ko jàngee ci lañ ko jàngee Touba gi nga xam ne personnes yooyu chaque jour dañuy jugee dëkk dañuy jugee fu sori ci dëkk bi naaj moo xam muy naaj moo xam muy taw moo xam taw dañuy ñëw jàng tisbaar tàkkusaan ba ba euh, suba gi fajar gi ginnaaw ginnaaw bu ñu jullee suba ba pare ak tisbaar ak ak ginnaaw tàkkusaan chaque jour dañuy ñëw di ko jàng kon daaray Kaan boobu moo nekk ci biir jumaa ji moom lañ fay jàngee waaye bu dee bii nag mooy bibliothèque bi ndax tur bi xamante ne mooy tur officiel tur daaray Kaan bi tur dëgg-dëgg mooy turu bibliothèque Seexul Xadiim ndax bu ñu daaray Kaan bi ñëpp dañu yaakaar ne alxuraan kese kese kese moo fa nekk fekk ne macha allah xam-xam yu nit ñi di soxlawoo ci domaine yépp domaine boo laal rek sëñ Abdou Lahad indi na fi xam-xam yooyu ndax Seex Xaadim dafa nekkoon nu mu leen wax léegi ku yaatu woon ku awoon gis-gis koo xamante ni nekkutoon koo xamante ni moom dong la woon waaye daf daf daan eh, nangul yeneen moroomam yi nga xamante ne ay borom yi xam-xam lañ di nangu seen bëgg ndax bi weteg bi nee naa la léegi eh, bokk na ci li tax ñu gën koo créé eh, Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dafa amoon yéene yi taxawal bibliothèque fële ca Njaaréem yàlla dogaloon yéen a jojo sottiwut ndax téere yooyu ci bari amoon yoo xam sànk woon na am ñoo xamante ni lakkoon na eh, Cheikh Abdoulaye nag jël yéen jojo njëkkale ko barab bi tuddee ko bibliothèque Cheikhoul Khadim nga xam ne Sëriñ Tuubaa moo ne woon eh, sama trésor eh, mooy alquran hadis ak teggin trésor am nekkul dajale xaalis wala dajale or wala urus kon li mu daan dajale mooy xam-xam ak alquran ak hadis moom la daan dajale moo waxoon sama kéemtaan mooy li ma bind li nga xamante ne bind naa ko mooy li xamante ne mooy sama kéemtaan sama karaama mooy loolu kon képp koo xamante ni bëgg naa xam kéemtaanu Seexul Xadim na ko xool ci am mbindam képp koo xam ne bëgg naa am euh, kéemtaanu Seexul Xadim na ko dem yër am mbindam parce que mbind mi bind ko rek teg ko noonu ñu ci barkeelu ko si naa am bokk na ci am na si waaye li ci ëpp njëriñ nag ñu jël koo di ko jëfandikoo suñu dund di ko jëfandikoo ci suñu bëgg-bëgg ba am defar ci suñu bopp defar ci suñu jikko di ko yàqu yi melokaan yàqu yi yëpp mën ko cee defar loolu taxoon Sëñ Tuubaa jub pour mën a taxaw bu ñu amee laaj bi. mën nañoo Kaani nan la ñuy liggéey ak bi nga xamante ni benn lañ bibliothèque bii nday nday la ci bibliothèque yi te ku ne université na bibliothèque te bibliothèque bi yéene ji moo doon Cheikh Abdoulaye yéene moo doon euh, boole ko ak université ba kon Cheikh laat ku ne xam ne ne moo tàmbali woon projet université bi yàlla dogal fekku ci jamono. mais boo xoolee fànne xam-xam yi fi nekk yépp li doon yéeneem mooy étudiants yay nekk foofa suñ bëggee def ay recherche di ñëw fii loolu moo nekkoon yéen étudiants ya nekk daara ya nekk ca daara ja suñ bëggee gëstu mu ñëw ci bibliothèque bi loolu moo nekkoon yéeneem kon yéeneem nekk maanaam bëgg-bëgg moom université bi suñ Abdou Sëñ Muntaxa eggale jaam eggale fan yi euh, étudiants ya fa nekk yu ci bari ñoom dañuy ñëw fii ndax seen bibliothèque bañ bañ bañ nekk am na téere yoo xamante ni amagu fa te di nga am fii kon univers am na yeneen université yoo xam ne ci bi li mel ni lycée Al Azhar bu seeni étudiants yi fii lay ñëw Touba def ay recherche kon ñoom ñëpp dañuy ñëw fii ànd ak daaray kaamil ñu ñu encadré kon du question benn université boobu donc même université nekk yëpp dañuy ñëw fii étudiants yi ñu fiy ñëw di def seen stage wala ñu fi def préparer seen mémoire wala seen seen seen di ñu soxla yëpp seen gëstu ñu soxla yëpp dañu fi ñëw kon mémoire yooyu si bëree bari indi nañ ko fi ci daare kaamil xam ne mémoire yu bare bare ci français ci arabe ci yeneen langue yi ñu ngi ci daare kaamil gi nga ne tey ku ñëw ci barab bi da nga ko ko fekk ndaw yi ki nga ñëw nga xam ndaw ñooñu dafa am ab commission boo xamante ni seen liggéey mooy lépp lu jëm ci accueil yi ñi nga xamante ni xamuñu pour ñu xamal leen ndax ndaw loolu du jékki-jékki rek ñëw daare kaamil ndaw li jógee ci école bi wala mu jógee ci feneen balaa ñëw day woote laaj un enseignement fan lay jaar ba a am euh, accès ci bi su ko defee école bi mu nekk wala université bi nekk defal ko benn demande mu ñëw indi ko fii bu ko defee ñu accepté ko suñ ko accepté mu bàyyi fi ay papier mu jox ko benn carte boo xamante moo koy am moo koy may accès mu ñëw su ñëw ci bi nag du jékki-jékki rek jël téere am na ñu koy guidé am na ñoo xamante ni ñoo koy encadré ndax li mu waroon def ci temps mu mën a xam ne na technique yi ñu koy wan rek bu gàtt a mën na fee xam li mu bëgg xam lépp te du jël temps bu bari ndax euh, jamono jafe xat léegi ndaw yooyu am nañ équipe commission boo xamante ni lépp lu jëm ci wàllum euh, guidé wala encadré yi nga xamante ne ñoo di recherche ñoom ñu ngi ci salle boobu nga xamante ne mooy salle de lecture. waaw li may wax rek ñaata tonne moom xam nga li ñuy wax lu bare bari euh, tonne kenn mës a gis Sëñ Tuubaa tudd ko ci am mbindam loolu moom wax la joo xamante ni ñu bari ñu koy wax te amuñ fi ko teg parce que lépp loo gis dafa am source. benn mu nekk liñ bind wala lu lu ko lu kuñ xam kuñ miin a xam ci wax ju seex wax seex xarit wax waxtaane ko wax ko mais sept tonnes yooyu ngeen dégg nekkul loo xamante ni confirmé la ndax euh, dañ koy wax lu baree baree bari li tubaa du lépp nga mën a gis fii lépp nekk fi parce que bu ma waxoon fii daraan fi am na lu nekk Mauritanie am na lu nekk euh, Gabon am na yu nekk feneen ak feneen yoo xam nekkul fii kon li am solo rek mooy waruñ koo takk ci ab lim liñ koo takk mooy ci valeur maanaam voleur bi am njëriñ am li nga xamante mën na koo jël nit ki ba nga xamante ne tey euh, dundam mën na koo saafara ci ay jafe-jafe bi ay problème am yëpp ay jikkoom mën na ko saafara mais jëmmi ak exact bi euh, mënuñ koo ko mënuñ koo wax parce que bu ñu waxee nombre exact fekk nombre ba nekk njaareem fekk nombre ba nekk feneen ak feneen loolu dañ indi erreur moo tax boo meen benn nombre la rek da indi moo tax suñu tubaab la ma waxoon rek karaamati xatikat yi boobu sama loolu moom mooy indi wax bëri na ci ñuy bind ci sëriñ i euh, mbind jéem waaw loolu liggéey nañ liggéey bu macha allah euh, def nañ benn euh, kuréel boo xamante ni kuréel bi ci yoonu murid la aju maanaam képp koo xamante ni ngay bind ci yoon yi rek ci ñoom ngay ñoom ngay lëkkaloo lépp loo bind ñoom dañ koy am bu ñu ko defee bi ñu amee ñoom ñun ñoom dañoo lëkkaloo ak ñoom bu ko defee ñoom lu ñu bind ñoom dañ koy indi fii li gën a gaaw liggéey bi mooy. dañoo wax ne léegi képp ku bindati da nga koy da nga koy da nga koy def benn cérémonie cérémonie dricage léegi daal kaay am na salle bu mag boo xamante ni lépp lu jëm ci wàllum jumtukaay ya yi ñu ya ñu koy defee ma nga ca ma nga ca barab boobu exposition yëpp ña nga fa léegi ñi bind ñu baree bari ci at yi waa passé macha allah ñu ngi ñëw bu baax a baax a baax ci langue yu wuute yu baree baree bari ci arabe français anglais italie xeetu langue yëpp boole ngeen duggee ci salle bi ngeen fi gis langue yu baree bari yoo xamante ni ay ndaw ay ay ay nit même ñoo xam ne sax duñ ay murit seen i bind fi waaw niñ ko du question na bibliothèque bi bibliothèque wàllu murid kese la mais ñi nga xamante sax duñu ay murid ñu si bëree bëri seen seen i livre ñu ngi si daaray kaamil ndax fi ñu ku ne fi ñëw même sax euh, ki nga xamante sax du musulman sax dafay ñëw euh, étranger yi bëree bëri dañu fiy ñëw di gës si euh, ci ci barab bi hmm? waaw ñu ngi tàmbali sànce bi 1974 jeex 1977 ci lañ ko inauguré ci xilaafa Cheikh Abdoulaye Mbacké am na liggéey bu solo bu euh, euh, ba amoon ay yenn rectification yu ñu yu fi tere xam nga di def léegi loolu ngeen euh, waaw loolu moom xam nga yoonu murid dafa xaw a yaatu ku ne daa am loo yor maanaam dafa am commission boo xamante ni lépp lu jëm ci wàllum culture yër wàllum xam-xam ñoom lañ ko jox mooy raw doyen léegi raw doyen ak ñun benn benn benn lañ dañuy liggéeyandoo. Euh, lépp lu ñu soxla ci ñun ñu ne ñoom benn la ñu soxla ci ñoom ñu ne ñoom benn la comme lépp loo xam ne dañ ko war a tontu wala dañ ko war a euh, defaraat ñoom la seexal fat seex Muntaxa jox liggéey boobu tey ñi nga xamante ne ñooy taxaw liggéey bi waaye luy information yi ñu soxla ci ñun nag soxla ko ci barab bi dañ koy dañ leen ko yombalal parce que ñoom ak ñun benn liggéey la hmm. ci wàllu euh, lëkkaloo ndax bu fekkee amagul ndax yéen a ngi xalaat ci ab projet euh, duggante ak yeneen daara yu kawee yu nekk ci biir réewu Sénégal ngir xool ba xam nga xam moom moo di euh, bindub sëñ bi dinañ ko fa mën a jàllale. waaw loolu ñu ngi ci ñu liggéey liggéey bu am solo daara yi université yi nekk Sénégal yëpp Gaston Berger ak université Anta Diop ak Assane Seck ak université yëpp li ñuy nii université Villetaire bi nga xamante ne ñoo nekk Dakar ñu ngi ni tey. ñi liggéey ñoom ñëpp amoon na ñoom ñoom benn lëkkaloo boo xam ne ñu ngi liggéey suñuy partenaire lañ ñu euh, ngi nii tey projet université euh, bi nga xamante mooy virtuel bi ñu ngi war la war a lancé suñu kii numérique bi nga xamante ne defar nañ bibliothèque numérique bi nga xamante ne liggéeyoon nañ ko tey ji incha allah ñoom ñu ngi ñëw pour lancer projet boobu nga xamante ne moo jëm ci bibliothèque numérique bi nga xamante ne bibliothèque bi lépp dañ ko informatiser boo nga duggee salle yi salle yi fi ni fi nekk lépp dañ ko informatiser nga xam ne fi nga toog sa kër mën ngaa am accès ci téere yi te doo génn sa néeg sa portable lépp mën ko xam nga numérique lay doon application lay doon léegi ñu ngi ci liggéey ñi nga xam ne tey euh, ñëw nañ pour mu mën a indi présentation liggéey boobu. waaw dañuy fekk sante ñun dañu ñoom dañuy ñëw ñun ñuy ñëw ñoom bu ñu soxla information dañuy ñëw def enquête yi dem ñu bu fekkee dañu soxla ay ñu nit soxla ay formation pour gën a am suñu xam-xam ci wàllum ci wàllum bibliothèque ñun dañuy déplacé dem defal ñu formation kon ñun ñëpp ñëwlante. ñu tàggee ci seen biir ba waaw dafa am commission boo xamante lépp lu jëm ci wàllum technique bi ñoo ko yor euh, loo xam lépp lu jëm ci wàllum technique pour xaale yu bees yi ñoom seen liggéey ñoom bu ñu ñëwee ko defee ñu ànd ak ñoom ci liggéey boobu. ñaax bi lan la ak la bi waaw ñaax bi de mooy ñi gën a bàyyi xel mbindum Cheikhul yi te xam ne Cheikh Abdoulaye Mbacké ba muy defar lii euh, bibliothèque bi defaru ko woon ngir rek wane euh, Sëriñ Tuubaa bindkat la woon daf koo defoon pour jàngale euh, Seexul Xadim ak xam-xam ndax mag ñi nga xamante ne ñoo ko laajoon lu tax nga def bi bibliothèque bi laaj nañ question boobu mooy dañ dem ba jëm jamono duñ gisati doomam wala duñ gisati ku defar su ko defee ñu dellu ci am bokkoon na ci li tax ko kon ñaax bi mooy euh, ñi nga xamante ne ñi ngi ñëw nekk ay murit ñu gës gën a gës Sëñ Tuubaa ci xam-xam parce que Sëñ Tuubaa ci xam-xam la yàlla may ndam lii ci xam-xam la liggéeyal yàlla ba yàlla defal ko ndam ndax ko tubaab yi laajee ne ko da ngay jihaat mu leen am damay jihaat waaye li may jihaatee mooy xam-xam ak ragal yàlla ci xam-xam boobu nag ci la fondé yoonu murid teg ko ci ba yoonu murid tey ji macha allah di dem ci kanam te kenn mënu ci dara ndax it fi ko teg moo leer muy xam-xam kon ndaw ñi li ñu gën a soññ mooy ñu gës sëñ Tuubaa ndax gëstu ko jëfeetul léegi même ci mën a jàng ak ci mënut a jàng ñoo ñoo ci yem parce que mënut a jàng mënut a am na ay cassette ay son yoo xam def nañ ko ci langue arabe wala langue français wala langue wolof ma nga caa jëriñ Seex Xaadim kon léegi moom lay amatul ndax Sëñ Tuubaa problème bi yëpp réglé na ko ni mu ko réglé mooy bind na bàyyi fi li mu bind bàyyi fi nag moom kenn yokku ci dara dur ñu mën ko gën a leeral nit ñi nga xamante ne mënuñoo xam ñu xamal leen ko kon ndaw ñu ngi leen sant sañ soññu lool pour ngi ñëw ci barab bi ñu ngi fiy ñëw nag bu baax macha allah ndax bi weteeg bi ay jamono amoon na problème pour communication waaye léegi xale yu baree baree bari étudiants yu bari ñu ngi fiy ñëw dongo yu bari ñu ngi fiy ñëw pour def ay recherche ci biir waaye ci mm-hmm. mm-hmm. taxawaay waaw taxawaay bi moom mooy taxawaayu seen rôle ndax seen rôle mooy rôlu xam-xam ndax euh, lépp loo gis euh, xam-xam da war a jiitu ñun bi nga xamante ne safar gi teru na ci ñaareelu fan bi ci lañ tàmbalee activité yi def ay conférence ba incha ba tey ji la war a jeex nga xamante depuis le deux safar ba léegi euh, dañuy def ay thèmes yoo xamante ni pour euh, leeral nit ñi leeral ñi nga xam ñooy war a ñëw ak ñu nekk ci dëkk bi thèmes yi nag dañu ko defoon ci ay trois trois parties bu njëkk bi mooy xamle euh, lan mooy màggal màggal lan mooy màggal dëgg-dëgg màggal ñaareelu xaaj bi nekkoon lan mooy jëmmi Seexul Xadiim mooy kan am jàngale mooy mooy kan beneen partie jëm ci dëkk bi dëkk bi ay problème ak ay solution ak ak ni ñu a nekk ak ay warma yëppam kon defoon nañ ko ci waajal màggal gi bi maa ngi woy dañuy continuer def ay kuréeli xasida ci suba gi ay kuréeli xasida lay doon ngoon gi ay conférence lay doon ba tey ji nga xamante ne bu ngeen duggee salle lecture bi da ngeen gis kuréel boo xamante ni ña nga fa commencé liggéey liggéey bu am solo boo xamante ba incha allah ba maa ngi jeex kon ñun suñu rôle mooy ñii ñëw comme journaliste yi comme ni ngeen def nii su ñëwee ñu leeral leen li nekk ci barab bi xamal leen ko ba ñi nga xamante xamuñu woon ñu gën xam barab bi gën koo miin gën koo taxaw léegi nag bu dee màggal nag il faut ñu yokk organisation bi parce que bëri na ñoo xamante amuñu jot di mën a ñëw tubaa occasion la pour ñu buñ buñ ñëwee ñu may leen chance pour ñu mën a visiter xool bibliothèque bi fi nekk ëllëg si biir bu demee man fee ñëwaat nag nga xam li fi nekk kon seen taxawaay mooy fexe ba ku ku ñëw rek euh, leen fa bëgg nga am ko fa te doo am benn jafe-jafe ci la soxal ba léegi daaray Kamil sànq defe naa maa koy dégg nga koy wax ci wàllu numérisation bibliothèque bi Euh, tey ji ñuy nemmeeku ay nasaraan yi xam ne dañuy jógee euh, bitim réew euh, ngir rek daal ñëw fii ngir bind soit seen thèse wala seen doctorat ci li nga xam ne moom mooy yoonu murit wala li nga xam ne moom mooy ñeel sëñ bi ñooñu noonu tey ndax am na anam yi nga xam ne dañ leen koy gën a yombal ñu mu gën a accessible ci ñëw waaw ñooñu noonu li ma la waxal léegi rek ay ay commission la ñooñu nga wax ay nasaraan lañ bu ñëwee am na ñoo xam ci ca làng ba ñuy wax moom lañ leen ñoom lañ leen di booleel bu ko defee même bul màggal sax am ñoo xam ne bu ñëwee am nañ commission boo xamante ni seen seen domaine lépp lu jëm ci guide la ay guide la ay guide lañ yoo xamante euh, seen langue yi ñu jàng ci la ñuy mën a guidee ñi nga xamante ni ñoo kon ñi ñëw nekk ñoo xam ne dégguñu langue olof wala dégguñu langue beneen euh, langue bu ñu bëgg a dégg am nañ ñoo xamante ni yàlla may leen langue boobu ñu dégg ko su ko defee dañ leen mën a guidee ba liñ bëgg a xam lépp ñu xam ko Ousseynou Diatara nekk coordonnateur bibliothèque Sëriñ Xaadim mbokki Prestige TV ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ngeen àndoon ak ñun fi nga xam ni moom moo di daaray Kaamil euh, di bibliothèque euh, Cheikhul Khadim fa la ñu ñëwoon dégg ngeen euh, waxtaan bu solo bi nga xam ne jot nañ ko sekk ki nga xam ne moo di coordonnateur bi leeral yi xam ne indil nañu ko fii nag nga xam ne rek la ñuy sàkkoo xam-xam bi nga xam ni dafa takku ci ki nga xam ne rek moom moo di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul moom nag ci yenn ci ay bindam mi ngi naan rek seet leen xam-xam te mu bañ a doon li nga xam ne rek wujjee lay doon waaye rek mu doon li nga xam ne xarkaramu yàlla ci mbind euh, bi nga xam ne sax jagleel na ko ndaw yi mi ngi naan yéen ndaw yi bu fekkee euh, da ngeen bañ gàcce fexe leen rek ba jiital li nga xam ne moom moo di xam-xam mu daal di doon mbir mi nga xam ne sëñ bi loolu soxaloon na ko euh, loolu bënd yooyu nag ba léegi mi ngi woy moo tax fi nga xam ne moom moo di daaray Kaamil bibliothèque Cheikhul Khadim bés bu ñu fi ñëwee rek mu fees dell ñu ngi noonu nag waa Prestige TV ñoo fi àndoon ak yéen ki nga xam ne moom moo di Isaac Dapa nekkoon ak yéen waaye Moussa Mbaye nekkoon ci caméra ba di leen jaajëfal